assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam ñu ngi leen di ziyaara ziyaara bi dox diggante jullit ak mbokk jullitam ñu ngi ñaan yàlla li ñu fi def yépp yal nañu ko yàlla nangul nangul ñu ko ci barke sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mi nga xam ni day xalaat rekk yàlla fekk ko ci bëgg-bëggam jël nuyoo yooyu yépp def ko ci benn enveloppe

buñ ko defee ci enveloppe ñu daldi di ànd ak summi suñuy dàll dox ba fekk sayidil jalil al cheikh ibrahim chérif haydara fa mu toog ñu teg ko ci loxoom mu joxal ñu ko mbooleem surafa mu nekk ci jalsa jalsa bi ndax moom cheikh alhaaji ibrahim bu ci jotee ñoom kenn ku ne daa séddu ñu di gën a ku di ko seetaan di ko bàyyi xel di jànge ci moom lu bari ndax sëriñam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu daara rek la ñuy xel te keroog gis naa ñu seetaan benn vidéo muy jox ay taalibeem tariqa Sayyid Cheikh Ahmed Tijani Cherif radiyallahu anhu may seetaan Cherif ni mu leen di joxee tariqa bi noonu la Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz daan joxee tariqa bi. mu wax ci kaw fa mu ko jële ba ca sayiduna cheikh ahmad tijaani chérif mu wuuteeg lool ñu bari ci tariqa bi nu ñuy wootee ni muqaddam lañu ñu ni ijaazal na leen ñuy joxe tariqa bi te doo ko gisee noonu kon chérif ibrahim yal na la yàlla yokk kattanal yal na la yàlla yokk téyal boppam cofeel gi nga am ci cheikh alxaaji abdul aziz moo tax xamuñu nu ñu lay def lu dul topp sa ginnaaw ziyaar la te di la ñaanal yàlla yal na yàlla nangu lépp loolu mooy sharia ñu ñëw ci jalsa bi ci xaqiqa abbat lettre boobu ñu joxoon Chérif Ibrahim gannaaw bi mu ko liiree ba xam la ca nekk jox ko alxaaji Mouhamadul Mansour ñang suñu sëriñ ak rakkam yu baax yu tedd yi mu àndal te cheikh Mouhamadul Amin ñang uutu woon ko ci lu bari ci jataayam surtout cheikh alxaaji Malick yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ci ñun yal na yàlla sàmm leen sàmm mboolem jullit yi ñu ni mu woon naa nafar benn bind bu gàtt ci ku neex a waxtaane moom naqarewu la waxtaane ak a waxtaane nitu dëggulawoon waxal ci moom dëgg rek amul lenn loo yëkkati di ko jëmale ci moom ñu ni la li nga wax du dëgg lu tax parce que dafa yoroon jikkoy sayyiduna muhammadin mi nga xam ni kaana saduqan fi xayaatihi saduqan fi mamaatihi saduqan qabla wilaadatihi sallallahu alayhi wa ma di ko waxtaan ci nafar bind ci ñetti triangle triangle dañuy xam ni lii ndeyjoor la jëm ca kanam lii càmmoñ la jëm ca kanam ndeyjoor bi mooy kitaaballahi bi nga xam ni sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem daf ni woon taraktukum ala mahajjati albaydaai layluha ka nahaariha laa yaziqu anha illa haalik kitaab allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi def ni maa ngi dem bàyyi leen ak ñaar téere yàlla bi ak sunnaam sii nga xam ni mooy sharia waaye kaca kanam mooy moom mi dénkaane kitaaballahi moom yonent bi moo ne ci kanam moom mi dénkaande sunnata rasulihi moo nekk ci kanam kon cheikh alhaaji abdul dafa ñëw ñaar seq ko téere yàlla bi ak sharia bi mu war a jël ñoom ñaar ñooñu ànd dem caka ca kanam muy yonent yàlla muhammadin bi mu gestoo xamul lu muy yóbbu aay bi mu doon bàyyi xel muy kitaaballahi am lu ko jox comme yoon pour noppal yoonam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz soo ko bëggee waxtaane comme ni ko Mouhamadul Amin junje jëlal aaya boobu ñuy wax man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan gestu rek aaya bi dimbale ko mu jël aaya bi muy ngàndaayam bëggul kitaaballahi mer bëggul sharia manqué ñeenti soxna la fi bàyyi bu juróom rek diine la muy woote moo moo tax suñu maam ja suñu papa Cheikh Pape Alhaaji Mouhamadul Makhtar Diop ne nitu sunna nitu diine bu takkee juróomi jabar dootul nitu diine génn na ca ndax dafa jéggi char buggul sunna mer mu jàpp ci sunna jàpp ci kitaaballahi jëm ci ki ko ki ko ko digal nag dafa keneen ku ko ko digaloon yàlla moo ni woon atiu llaha wa atiu rasula kon loolu ci zahir da daanu yàlla kenn du ko topp dangay ngay topp yonent bi ci ndigalu yàlla atiu awamir allahi bi rasulikum topp leen ndigalu yàlla ci sang bi lu tax in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee rek du ngeen échec cheikh alhaji abdul fekk ci loolu këf aaya bi jëm ci yonent bi taseeg benn ñaari bayit yu ko boppam tegal ci yoon wi mu jaaxle mu ni ci kitaaballahi laa jóge sharia di ma accompagner may dem ci yonent bi man amila saalihan ñëw wéttale ma waaw lu may ragalati xelam ni yar ci la maam papaam min baadihi nazilun yaa an fa yarfau yaa fi rafaiha qul fasaadul xalqi wal tuhami mu dellu gannaaw taxaw moom sharia saa yu ko masaana dab mu taxaw ñu ngi fàttaliku benn jamono booba ay tuut tànk lañu ca Tiwaawan bëccëg dix jëm onze heures ñu wax ci rajo bi Cheikh Alhaaji Abdu ni ngeen bal ma yéen mbokk yi weer wi kat feeñ na démb sharia dab na ma dama taxaw na ñépp wari Tiwaawan ñépp wari sharia kilifa gum dab dangaa war a taxaw mu ngan man kaana yarju ñaari bayitu papaam ne ci kanam lan la salaay salaam nee na jamono dina ñëw sama gannaaw jibril dana wàcc fukki yoon jël fukk yóbbu cheikh alhaaji loolu ne ci kanamam te fukk yu bëggu ci bàyyi dara lu tax man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amala saalihan fukk yooyu mooy lan bu ca njëkk mooy yumnun barke cheikh alhaaji abdul aziz ci man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan jëf na ci yum nun loo xam ni ku ko bàyyi xel sa àdduna texe yum nun yum nun wa cheikh alhaaji abdul aziz ci man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan jëf le nag xubbun jër boo xam ni ku ko bàyyi xel boo xoolee xubbun naan na ko ba mu jeex bu doon kaas la bu ci topp waraxmun yërmande fu mu tolloon rek Cheikh Alhaaji Abdul Aziz nee woon dinaa ci liggéey loo xam ni dinañ xam ni yonent bi lañ ma roy waaye nag cheikh mooy suma sëriñ ndax mooy sëriñu suñu sëriñ moo tax yenn saa yi nga dégg ku ne mam Cheikh Alhaaji Malick daf ne cheikh ay sama sëriñ waaye yonent bi lañ ma royloo dee déedéet wax bi amul teggin yonent bi lañ ma royloo waaye yonent bi d'accord na ko def istidrak ci doomam ji ndax du ko bëgg yonent bi ku bëgg say Cheikh Ahmed Tidiane la waaw ana murabbika wa anta waladi wa ana cheikhuka al abarru kulla musnadi kon nangu na yonent bi dabaatal ci cheikh mam moo dooni waaye yonent bi di ko déglu mu ni cheikh ay sama sëriñ duma ci yem ci tariqaam bi lay sukkandiku defar sharia bi loolu la wax moo tax bi mu jógee di wuti yàlla cheikh la njëkk a taseel moom cheikh alhaaji malik di ko song yàlla ni ko déedéet du sa cër yonent bee sa cër mu fipp ba sonn unaadi wa hal yujdi nidaau axal jawaab hal dëhru yuatini muraadi wa rahbat cheikh la njëkk gis cheikh la njëkk a teg bët yàlla ne ko déedéet du sa cër demal ci yonent bi mu gëm dogalu yàlla mooy lan fahab liya an arda bi murril qadi wama liya rabbi wama liya rabbi an qadaika maadalun fahab liya an arda bi murri qadijati maam moo doon pexe amul nangu naa dogalu yàlla maa ngi fareek yonent bi gis nga ni mu ko def gis nga ni def maamu Seydou Ibrahim gis nga ni mu ko def alhamdulillahi ba ca Cheikh Assane ñu ngi bu baax a di la béggee kontaan nañu liñ la gisee barakallahu alhamdulillah jazakumullahu xayran ah, amadakallahu ala qayd alxayaati bi sixatin wa tabarakallahu xasan séeréer bu dégg wolof ju <laughs> tabarakallahu bil qada rabbi musabbirani kon man alaaji malik d'accord naa dem fareeg yonent bi di ca jëf di ca jëf di ca jëf ba yàlla yalgent ci deretam ji génn cay bant yu sell sëriñ babacar ñëw farek saydna cheikh na ahmad tijaani maam alhaaji malik ni ilahi bi qutbil aarifina maam sëriñ déedéet bal ma bal ma bal ma déedéet bal ma bal ma bal ma bal ma bal ma bal ma bal ma bal ma jazakumullah bal ma tuuti rek ilahi bi qutbil aarifina imamina sëñ Babacar ne est-ce que yaa qutbu yaa gawsu yaa mawlaaya yaa wasaru yaa muntaha amali billahi yaa xamoo kon sëriñ Babacar fare naag cheikh sayidul haaji malik farek yonent bi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangu gu mam Maodo nangu dogalu yàlla ci fareeg yonent bi moo ko mbay tey mu am cheikh ndax Serigne Babacar wutu na ko ci cheikh cheikh alhaji Abdoul Aziz nag ne kon yumnun wa rahmun maadinun maadilun wala maadinun bu leen jaawale baat yi maadilun maandute cheikh alhaaji abdul aziz maanduteem yeggoon na ci bu tukkee ñëw xamul fu mu ayee ci waxin nag ci waxin ndax bàyyi xel rasulullah ci biti lay fana ba xëy ñu ni ko góor gi kañ nga ñëw mu ni dem démb ci guddi kuy xam ni moo ay musoo nga xam ndax lan loolu lañ jàngoon ci sharia moom sharia da koo bàyyi woon xel moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz te kitaaballahi bi ne ci ndey jooram bëgg koo bàyyi lu tax kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa oxra min alkarb Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ni meloon ci alquran mag ñi nee nañ daanaka bi muy am fatxu daanaka dafa doon tura ñoom dara rek daanaka wàccul ci waxin ni ñuy wàccee jàng ba alif laam miim mais mboolem luy alif laam miim bi riwaayati warshin an naafi na ci toog ngir lan way juram wi ko topp ba melal ko ni mu mel nettali nañu ñu ni maam haadi radiallahu bi cheikh na ahmad alhaaji malik tollee ci waya waaj pour dem wuy ji boroomam mam alxaaji abdul lañu woo ci kitaaballahi muy jàng di jàng alquran ja ba ni way jur wi tàqali koog ruuxam jëm barzaqul arwaax waaye kon ndekete moom kitaaballahi lu tax téere boo xam ni ci lañuy ñuy yaakaare adduna ak allaxira téere boobu jullit moom mooy dostuuram mooy référence moo tax mu ni min alxaqi jaa alxaqu lilxaqi fi saxbi bi xaqin mubinin laa yuaanihi min saabi ma abdu ni ah bi nii la mel jaa a dikk na alxaqu téere bi min alxaqi bàyyi ko ci yàlla lil xaq ñeel sayiduna muhammad bi xaqin ci suuf a laa yuaanihi du jànkonteg mukk min saabin ci jafeñ-jafeñ ci kuy jàng téere bi dégg nga sànq cheikh mouhamadul mansour ak njabootam gu tedd gi bi ñuy jàng xatmul quran bi niñ ko ñaanee nga xam ni mag ñi nag desit yaa si nag ba tey yenn saa nga dégg ñu ni àdduna yàqu na déedéet àdduna am na lu ci des ci mbaax su yàqu woon yàlla lemmi suuf taxañ asamaan sànni ko fa mu dellu fa mu jóge woon Cheikh Al Hadj Abdoul du ni comme du jànkoonteeg jafeñ ci jàng ko di ko jëfe man Al Hadj Abdoul naa ko man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ñu ni ko lu tax mu ne rajaw naa téere bay wax de téere bi dañ ko bàyyiwul xel rek ko bàyyi woon xel rek dem suñu yoon rajaw naa min al mawla bihi xayra matlabin wa fuzna bihi fi kulli dafin wa fi jalbi góor gi xaritoog téere bi rek téye ci ndey jooram ndeke téere bi rajaw naa ci la ñuy yaakaare bihi ci barke téere bi xayra matlabin gën ji càkkutef te mooy yonent bi soo bëggee sopp rasulullahi toppal ak alquranul karim soo bëggee mu bëgg la moom yonent bi topp alquran ndax daf ni woon taraktukum ala mahajjati albaydaai layluha ka nahaariha laa yadiqu anha illa haalik kitaab allahi wa sunnata rasulihi kon boo bëggee yonent bi sopp la jëlal téere bi lu tax ida ma talawna al aaya fuzna bi maxtafa ala gayrina min sirrihi jaalibil xijbi so da nga bëgg nit ñi sopp la jarul dugg xalwa naan yaa tamtasu nag yaa azadu déedéet jëlal téere bi rek faqra'u ma tayassara min alqur'ani soo ko defee yàlla nee na sa dund danaa ko neexal lu tax qaharna bihi al a'daa turran wa qaadana ila al akrami fi l bodi wal qurbi cheikh alhaaji abdou an nee na ci téere bi moom mooy tax nga not say noon te du ngeen xeex ak jaasi ak paak te loolu lu am solo la siyaasiye boobu moom la fi Cheikh Alhaji Malick doon doxal ba tey téere boobu la moom moom wax mu ne zafir na bihi mimman hadena talaqiyan bi jaahi alladi am daaxuhu xad xada da'bi laa illa allah kon Cheikh Alhaji Abdoulaye mënu ko waxtaane tegoo sharia ci ca càmmoñ teg kitaaballah sa ndeyjoor jublu rasulullahi sallallahu alayhi moom looloo ko jaaxaloon moo tax yumnun wa xubbun maadilun wa xayaa kersa cheikh alhaaji abdul aziz ñi dundoo nag moom xëy na ñun daal ñu ca tuuti lool waaye ña doon dund ak moom te xam ko biir ak biti kersam buñ la nettalee ni kersa yonti bi mayoon salaay salaam loolu la doon jéem te am na ca duy na ca ba doyal duy na ca ba doyal ndax jammul xayaai fama al adraau tudrikuha wa umurul barri fii wasami sallallahu alayhi wa nettali ñu jigéen ju am kersa yonent ëppoon kersa waaye Cheikh bi mu gisee ñaari bayt yi ñuy lim demoon na ba kersa ni ci meloon daana tax du tedd ci jotaayam ndax sëriñ bi soxla mooy laa yudaamu muridahu wa man lii bi sëriñ bi ma soxla mooy sëriñ bu dul gotti du ko wax lu ñaw du ko wax lu bon même bu gisee mu jëf naka dul noonu Cheikh El Hadj Aziz ci dundam daanaka jëfandikoo woon nag jëfandikoo boo xam ni yonent bee ko jëfandikoo woon sallallahu alayhi wa dafa am benn waay bu ñëw bu mel ni Cheikh Ahmed Tidiane si mii di wax ak yéen fekk ko muy jàngale ci biir daara ji ci biir jàkka ji waa ji ñëw rek woktu bayam rek summi rek tàllal tabaarakallahu teraangam bi di tuur ndox ci jàkka ji ay ku ko defoon fii Omar bocc jaaseem songo waa ji yonent ni ko Omar lu xew mu ni ko xoolal Cheikh Tidiane si li mu def nii lii dafa tedd di ba ma koy corriger sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar mu ni ko labbeek yow lañu yónni wala man lañu yónni mu ni ko wallahi sadaqta ya rasulallah yow la ñu yónni mu ni kon bàyyil borom dëj bi jooy dëjëm Seydina Muhammad ni ko e Cheikh Ahmed Tidiane mu ni ko labbayka moo tax ñu bees ñu ñëw di contre mag ñi nee nañ labbayka bidaa la ndax am fàtte ne ni moom miy weddi sax bii la ndax gannaaw yonent bi la ñëw di Seyd Ibrahim kooku gannaaw yonent bi la ñëw kon bidaa la <laughs> wala déet ah moo tax nit day weddi ndeke mi ngi weddi boppam ndax weddi bokkaale la waaw ama alal munkiri ilmu ma bihi tadammanat shariatun fantabihi xoolal mam Maodo ci baaxam ci mbaaxam ci bëgg xam-xam mun a pourtant munoo ne xaalal imaamu Maliki de te du yàq ci way wi dara waaye la mu soxla Shafii yoo ko ci doy ni qaalal imaamu Shafii innahu ruknun min ashirki fajaanibannahu moom Cheikh El Hadj Malick <laughs> ah, baax na baax na rek. sallallahu alayhi wa sallama togg na mu Muaz ibnu Jabal ci kaw gëléem ni ko yaa Muaz mu ni ko labbayka tegal ko ca wa saadayka ko ay suñ mag ñi balaa nga leen di weddi di ko teg fu mu ne ko demal nga tànku ndox cheikh dem tànku ndox indi mu ne ko cheikh mu ni ko labbayka mu ne ko sotti ko fi nga tuuree sa ndox mi mu sotti ba mu baax mu ne ko cheikh mu ni ko labbayka mu ne ko buniyal masjidu lissalaati wa dhikri wa taalimi laa baw bawli jàkka pour jàngale la comme ni may def nii man yonent ak zikkar moo tax ñiy weddi wasifa ci jàkka dañoo déggul diine parce que lu tax sallallahu alayhi wasallam dugg na ci jàkka fekk ñii di jàng ñii di zikkar mu ni bii baax na bii baax na waaye maa ngi ca ñay jàng boo jàngul doo mën a zikkar moo tax yi xew léegi kenn maa tax li kenn xamu ko jàkk bu ñu tëj ni kenn du fi wasifa yow yaa ngi bokk ci yaa ngi bokk ci aaya ba ah yaa ngi bokk ci aaya ba ne wa man manaa masajid allah an wa saaya fii bal ma man warsh rek laa miin te moom laa tàmm d'accord yeneen yépp wér na mais yiw laa bëgg ndax hakada unzila ilayya sayyiduna muhammad a ko waxoon cheikh donn ko ci loolu mu ni ko nag bu ëllëgee boo bëggee tur ndox toilette yaa nga nële waaw mbokk yi xool leen loolu waa ji xam nga lu mu ca teg daf ni ko yaree dikuuma yar nañ ma ci diine lu ñu nit di def nitu yàlla meloon ni alaaji Mansour ci jamono di yéegee nit ñi yéegee nañ ma mais dafa am lu ma manqué woon mooy giid ñu ni woon am da kuy ñëw ku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day yor jikko yi jikko yi jikko yi ma ñëw tiim ko su ma tëralee plat A mu essuyé B mu essuyé ma dem ba ca Z rek automatiquement sama xel yenkewal ma ni nekkete naa tuur ndox ci jàkk ji loolu rek laa amoon ba mu pexe yow rasulullah waaye xam naa ni du sama yareedu ku kon nag ashhadu annaka rasulullah jikko jooju loolu mu def xoolal li mu jur waa ji ne ko yàlla na la yàlla jéggal yow yonent bi ak man mu ne ko déedéet laa taqul dalik waxal ni adduaau ida amma nafa wa ida xtasa rtafa ñaan su yaatoo jëriñ soo ko yemalee ci sa mën na am du du nangu waaj na ko déedéet su ma waxee loolu Omar daf ciy bokk te amoon na yéene rey ma mu ne ko sil man qataaka waati man xaramaka waafu am man zalamaka keroog la innama buistu li utammima makaarima al axlaaqi wàcc uduu ila sabili rabbika bil xikmati cheikh alhaaji abdoulaye def na lu ni mel ñëw ci jotaay woo ñëpp ku ne mu dégg sa ba mu des diw nekk diw dafa mere woon Cheikh El Hadj Abdoul te yëgu ko ba tax mere koo yëgul sonal sa bopp la nitu yàlla soo ko meree yaa nar sonn rek ndax nitu yàlla day dugg ci man a aadaali waliyan da ciy dugg waaye góor gi ci baaxe ko bañ mu dem ndax mu boppam la mu ni laajte ñu ni ko diw mi ngi fi mu ni Pape Makhtar bu leen wax dara yëkkati ma rek ma fekk ko ca buntu ba Cheikh El Hadj Abdoul waa ji ñu naan fu mu jëm ba mu fekk ko ca buntu ba rek mu ni ko jàpp loxo ni ko maa ngi lay nuyu di la su fekkee dama laa tooñ bal ma Cheikh Al Hadj kooku la Pape Al Hadj Mansour cëralee bis bi sunna rek moo ko ñoroon bal moo ci topp sabrun Cheikh Al Hadj ci wàllu muñ kenn ku ne xam na ci waawan Al Hadj Mansour a ngi nii tiim ma muñu Cheikh Al Hadj taxoon na ci waawan ñépp mujj di xëy di ko nuyu te dañ koo mere woon lu tax dafa mënoon a muñ kan moo ko ko sant magam ja soppeem ba léppam muy cheikh alhaji mansour aya saahi sabran fal karimu sabuur xoolal karimu la wax parce que ki muy waxal karim la moom cheikh alhaji abdul aziz aya saahi e sëñ abdu sabran jëlal mbubb muñ rek nga man ko sol ko rek bul faale kenn sabran maa abdu ni ko waa alaaj Mansour dëkk bi dafa naqaree jaamu yàlla mu ne ko fal karimu sabuur ku bëgg a dem ca yàlla muñ rek la mën a sol mu ko waa tooñi nag mu ne ko sa yaxkumu wala sa yaxsolu boo ci wax baax na maa bayna al ibaadi xabiiru mu ne ko mais loolu dafa yéex mu ne ina lam yakun fi yawmi la budda min gadi tabassar fa fi uqba al umuri umuru la ilaha illa allah kooku mooy cheikh alhaaji abdul aziz jikkoy yonent bi teeloon na ko fa ndax min baadihi nazilun bu ci topp sang bi sabrun wa zuhdun dëddu àdduna maam Abdou am na benn mbubb ndeysaan bu tuddoon dabba est-ce que du bii sax ah bii la labbayka fab alxaaji Mansour <laughs> ah kon Abdou Dieye ci booloo waaw wallahi bàyyi alxaaji Mansour allahu akbar Serigne Abdou da daan solu nii ngeen bala ma jël Euh, benn exemple ci suñu soppe suñu mbokku taalibe bi bëggoon lool Serigne Babacar mooy grand Serigne de Dakar bu mag balaa alaaji Bassirou Diagne ak solom ak na mu daan mel tabarakallah su soloo ñëw ñëpp kontaan ci solom ndax na mu soloo jox ko place mu toog waaye balaa ngay xam ni soloogul Cheikh Al Hadj dugg ak dabbaaxam bu ndaw a ndaw a jekku àdduna ba téye ko sànni ko fal karimu saburu zuhdun wa xayaa ah, ah. saxaa ah, très bien tabe xoola sànq am na ku way léegi xaatima asrihi su la neexee tomb ko bu la neexee Cheikh Hadj Abdoul Aziz xaatim la woon ci ci tabe waaye xaatima asrihi faridu asrihi la moom Cheikh Hadj Abdoul Aziz sërif sërif da faral di fekk na fa ñu ko gën te moom gën na ca ña gën la waaye fekkati ko fa moom gën ko du am yàlla li muy maye du jeex waaja daf ni falaw qabla mabkaaha bakaytu sababatan bi soda shafaytu nafsa qabla tanaddumi walakin bakat qabli fa hayyaja liil bukaa bukaaha fa qultu alfadlu lil mutaqaddimi am ni ko déedéet d'accord ma ci alfadlu laa lil mutaqaddimi wala lil mutaaxiri alfadlu liman faddala allahu lahu moo tax haruna rachid waxoon ko waa ji mu ni ko almaru bi fadilatihi la bi fasilatihi nit ci li ko yàlla gënal teralee ko ko te mooy sopp rasulullah jàng alquran bëgg mag ñi bëgg tasawuf bëgg lu baax dee ci dund ci la ñuy xaar waaye du sama maam nee na kun ibna man chita waktasib adaban yugniika mahmuduhu an innasabi inna alfata man yaqulu laysa alfata man yaqulu kaana abi inna alfata man yaqulu ha ana za lu tax bi abi hiqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam Haaruna Rasiid ne kon almaru bi kamalihi la bi jamalihi nit ci matam kon la Cheikh alhaaji Abdullah ca mat ga ca mat ga ñoom alhaaji Mansour mii alhaaji Abdal Aziz Jéey nga xam ni saa yoo demee ci góor gi rek moom ngay fekk ci bunt bi mu jël la dugal la Pape Makhtar Kébé ñu tedd ñooñu nga xam ne ñooy ay aliyéem ñooñu xam nañu bi kamaalihi laa bi jamaalihi te ku nekk ku ne xam na ni Cheikh Al Hadj bi jamaalihi ca colu ga ca taar ba ca dal ga ca doxin wa photo yi sax ndax foto day wax foto yi sax waaye Haruna Rachid ni kon wa bi hasabihi laa bi nasabihi Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ci ngoram ci doyloom waaye du ci askanam ndax askan dafa am fu yem lawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim kon dëddu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz moo ko may lii mu am tey ci jikko yu tedd yooyu bi ci des mooy lan saxal quraanu alquran dañu wax ni daanaka kenn jàngatu ko dañ koy jàng rek mu yem ci làmmiñ xëy na Cheikh Chérif dina ci wax ndax mas naa ko seetaan mu wax ci loolu xëy na ci làmmiñ bi rek lay yem waaye ba tey baax na làmmiñ bi ba tey baax na moo gën ñàkk ko li Serigne Cheikh Tidiane si di wax ni waxin la nag bu ko kenn taawil yàq yàlla li mu am ci Sénégal su ko xeebee perte waxin la rek waxin la mais yàlla soxlaalul suñu daree dara law anna insakum wa kaanu ala abudi qalbi rajulin ma naqasa fi mulkihi shay'an dafa bëgg a wax ni ñun nit ñu ñuul ñi nga xam ne yonent bi ñëwul ci suñu biir dégg lañ ci am jàng ko gën koo bëgg naar yi naar yi gën balaa ngay xam ni ya yow doo moroomu naar nga dem mag yor cigarette di tux ba ci xaramay ni suul ko dugg ci biir jàkk doo gallax ni ko sax doo ko def te ci sunna sallallahu alayhi wasallam ni soo soccoo na nga gallax ni ko soog a dugg ci jàkka ji waaw ñu bees ñooñu ñëw ni am nañu diine mag ñi du danga leen di fekk ca kanamu jàkka ja ca sàppe ba ñu yor seen socc di socc yaree di ku la socc ci biir jàkk du sunna du sunna beneen bi mooy alquraan ba tey ci alquraan yenn saa nga dugg ci jàkk imam bi ni allahu akbar ne alhamdulillahi rabbil alamin su fekkee ni jàngoo woon muqaddimatul izziyati te mënoo tënku ndax amuloo respecter julli géeg nit ñi soo paree dem baamu sa julli Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a ko wax du waxantu lu tax mu wax ko moom cheikh cheikh daf ni bismillahi rahmani rahim alquran jooju sekkri yépp mi ngi ci biir bismillahi rahmani rahim Cheikh Ahmed Tidiane yi ne doole yi mu boole yor ko moom bismillahi rahmani rahim ku ko bàyyi amatoo doole yooyu ulul azmi ñaata lañu Mouhamadou Lamine juróom saxaaba yi gën a siiw ñaata lañu ñeent waaw malaayika yi daroon rasulullahi ca rañaan nga di ko ak akrim bi man jibrilu min quddaami miikaalu way wi rek la de miikaayilu la kenn du ko ci tox da sax bind fa ah asrafilu shamsu huyaami du ñeent muy ñaata treize jinne ya nekkoon ca sala xam nga mam moodo daf ñu yee dëgg la sarxa bi danaan la sal jabalun bil madinati mam moo da lu muy doyee wax ak jabal doj alquran utilisé na ko oustaz Assane Diouf alquran waxul wasalil qaryata laajal dëkk bi lu mu fi xasase ahlu bi wasal ahlal qaryati waaye boo koy jàng ci kii da nga naan wasalil qaryata allati aqbalna fiha xam nga loolu kon am na lu ñu fi xasafe mam moo da ci nëbbatoom mu asaf loolu bàyyee ñoom ñun ñu ñu réfléchir ñun yi mu ne yaa xaadiyan yalu sinaada fa balligan ahlas ahlal aliyati mooy juróom-ñaari jinne yëpp a dëkkoon te ba yonent bi de gàddaay ñu jógee Madina àndoon ak yonent bi mooy min maasharil jinni jaaltu nafara ashaaba xayril xalqi minhum xafara munshin man fàllu mbàkkee ku tëgg ci ñetti bay munshin wanaasin sharafin wa soosir wa amiru bnu jaabirin soo ko boolee mu ni fa haula xaafiduhum laa yuqrabu ñetti bayit yooye ku mokkal di ko jàng jinne yi fu ñu la gis su jootal la jinne yooyu nag la mam Moodu di jund ñoo dëkk ca salaa mu ni laajal ma nuyul ma leen nga laajal ma sama mbokki dëkkandoo yooyu nekk ci doj woowu ci Madina muy ahlal qaryati kon salaan wa salaan jiirati mam moo doo baax nee ñooñu jinne yi samay mbokk dëkkandoo lañ ndax dañoo gëm rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon alquran jooju nag ñu waroon a jàng te mu yem ci làmmiñ baax na lu tax yent bi nee na jàng leen alquran ngeen jooy ñu ni ko jooy moom xool yi dafa wow mënatuñ ko mu ni jooy jooy lu leen ko kon même buy yem ci làmmiñu Serigne Hassan Diouf nañ ko jàng lu tax ñu war koo jàng inna lazina yatluuna kitaab allahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaratan gis nga alaaji abdu bi muy dem ñett yooyu la taseel dafa ñëw bi mu gisee man amila saalihan gis bay di ñu doon nettali dafa ñëw rek gis aaya bi ci kanamam yonente bi wala boroom waxu borom xam-xam ñu ni salaasu tijaratin la taarifu alxasaarat ñetti commerce yi marchandise bi pert amu ci Cheikh Hadj Abdoul Aziz moom lu lu ñor yàlla ñor na ko lu ñor sayyiduna muhammadin ñor na ko muy vérifier di vérifier ni ah lii de bi ci njëkk mooy jàng alquran bi ci topp mooy julli saxal julli juróom bi ci topp mooy jël sa alal def ci diine waaw mbokk yi kon ndekete jàng téere yàlla bi ëllëg boo ñëwee yàlla ni la waaw Cheikh Alhaji Ibrahim mu ni ko labbayk mu ne ko loo ma yéene mu ne ko ñaari xisib laa la jàngaloon yàlla ne ko loo koy jaay mu ne ko ñaari xisib la de mu ne ko xisib bu ci nekk ñaata la mu ne ko un milliard yàlla ne ko multiplier naan la ko par dix dix milliards laa lay fay ndax alif laam miim alif xarfun wa laamu xarfun wa miimun xarfun ibrahima fecc ne kon naa demaat gën a jàng ndax kitaaballahi beneen bi mooy lan aqamu salaat sëriñ bi baal ma rek nga téyel ma nii ci barke samaam ndax waruma la ko waruma la koo sant waaw kañ wala nga jox ndax moo taxawee nii dina ko gën a jekk waaw kañ yàlla nangul na ma nañ lay rek waaye bu liggéeyloo mukk jàpp ci alxaaji maa ko waaw góor gi julli gu ñu nangu fu mu am mu ne ah man de xaw ma ko man Cheikh Alxaaji Malick waaye am naa yaakaar julli gii moom balaa borom di kàbbar yàlla nan na koo nangul julleem toujours rek ci sàmm Cheikh El Hadj nu mu daan jàppe ndax moom moom mu daan jàppe nga jël sa ndox raxas sa loxo nga ni nii bismillah allahumma inni nawaytu an atawaddaa rafa alxadasi al asgar allahumma ainni an dikrika wa wala tarixni raixata annaari allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun allahumma atini kitaabi bi yamini wa xaasibni xisaaban yasiran allahumma la tu'tini kitaabi bi shimali wala min warai dahri allahumma dhallilni taxta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام اللهم اجعل ذنبي مغفورا wasaa yi mashkuran wa tijarati lan tabuura mam moo doon ni yàlla ni évaluer leen ma gaaw évaluer leen ma validé ñu ne ko déet évaluer nañ ko mais validé ko ñu ne lu tax du ma ko validé man yàlla ndax sopp naa alhaaji Mouhamadou Lamine Niang ni mu ko defee neex na ma ñu ne ko waaye dafa am ku des dafa am ku des malaaka yi di déglu xaaji Mouhamad jël def ci ndox mi def nii def nii loolu ñi jàpp ñëpp defatuñ ko pourtant sunna la de hmm. waaw gis nga wa samaa yi wa taariqi tawaariqul yooyu moo koy jël moo koy moo koy capté ashaatun talaat min min aqdalin nasami moo tax ñun bu ñu yemee ci téere yi ni rek ci bind mi dañuy daanu te boo ko dee def rek loolu la ashhadu an laa ilaha illa allah boo demee ci muqaddima noonu la la ko jàngale sa bët yi nga yëkkati ko ila samaay waqul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina wajal nii min ibadika saalihina lu tax nga koy wax lu tax suuf moo ni woon asamaan maa la gën asamaan ni ko lu tax loo ma gëne mu ni ko sayyidul wujudi dox sama kaw am na dëgg asamaan dem ci kilifaam mooy yàlla mu boole ko mu ni ko yàlla suuf nee na moo ma gën ma laaj ko lum ma gëne mu ni ma yonent bee dox ci kawam yàlla ni ko may arbitre bi te damaa maandu danaa leen atte mm-hmm. rajab ji passé ñaar fukk ak juróom benn jëm juróom ñaar yàlla invité rasulullahi ci bisam weeram ci sehru rajab rajabul fard mu jëm yéeg kaw asamaan keroog bi mu ne takk tànkam ci asamaan dafa jaayu moom asamaan ba kontaan daan suuf naka mu nekk ni mu ne ko wan kon moo tax ñu ne bañ ko joxe julli mu ñëw ci xadra bi xelam ni yar ci fi mu war a gàggante ko ndax yàlla daf ñu woon yonent bi salaay salaam man sopp naa la bëgg naa la mais nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka dootuma fi ne di la gàgganti ndax doo gàg sax yow yow doo gàg mais alxaaji abdul aziz mii ñëw jamono ta nekk nit kese war a roy ci yow bëgg a jël jikko yooya yéen saay mu gàg ci waxin kon dama bëgg moom it mu xam ni gàgganti la war a def salaay salaam bi mu ñëwee ci pays bi teg tànkam kalmi ni yar ci dàll yi mu ni xadra bi tapis rouge bii ñu ma lalal ci biir tapis rouge bi sellul daal sama dàll yi di ci ndax duñ la teral ngay baadoo la xoolal ñun suñu dàll yi mbaa kenn solo fi dàll bal leen ma leen ma de bal leen ma de waaw bal leen ma bal leen ma xaar sama génnaat foofu ndax ma dafa am solo salaay salaam xelam ni yaru ci dëgg rek mu ni Moussa ca tuuru Sina yàlla def ko yaa Moussa mu ne ko labbayk mu ne ko innaka bil waadil muqaddasi tuwe mu summi dàll yi moo tax maam Abdul Aziz ne walam yamur mawlaahu xalqa niaalihi xelam nekk ci bëgg a summi dàllam yàlla ne ko est kay yow yonente bi sa dàll yi do dàlli Muusa yow doo Muusa afi rusli man bil haashimi yushabbahu laa laa yàlla ne ko dus dëggal rij sa tànk yu tedd ala basatina ci suñ yi mu daal di dëgg daal di dem waaw kon loolu day wane ni goo gaggee am foo gàggante ko moom ndeke ki mu doon gàggante koo ormaata waaye bu ko neexoon dem te kenn du ko yedd yàlla indi fa bu mel noonu pour loolu mu ni comme nag ba muy dëgg ca xadra ba li ko yàlla teeroo mooy ataxiyaatu lillahi azakiyaatu te balaa ngay julli jàpp ñu ni boo waxee baat yooyu jublu mam moo doon ni kii day kabbaragul waaye am naa yaakaar ci ndax lu tax da doon jàpp alwudu u nuurun da doon ñaan addu'a u nur xoolal loolu da doon def santane yàlla santane yàlla nuurun moo tax ñu bëgg soo jàppee balaa ngay dem di julli ji seytaane dafa gaaw waxal ak yàlla balaa mu lay daan allahumma jaal fi qalbi nuuran wa fi lisaani nuuran wa fi samai nuuran wa fi ba mu jeex allahumma atini nuuran kon yàlla mi ngi jàngale ci àdduna loo gis rek gis nga sëñ Alhaji Assane Diouf mii méthode boobu la am bu booy déglu xam-xamam bu commencé do loo yàkkanti woon da ngay toog nga déglu ci yaram dalam pédagogie pédagogie bi mu yore di ko lancé moo tax dañuy sawar toog di ko déglu mook Alhaji Hadi Niass waaw Alhaji Hadi dama ne Hadi dëgg la demul ci waawan jàng xilaasu dahab waaye ñeme na ko kon Hadi ka ko jàngal ka ko jàngal ka ko jàngal Maodo ko jàngal ci ngay xamee raw Maodo ci jaam yi bu ñu amul benn taasub walla tatarruf xam nañ ni moom du moroomu gaay moom daf ko wane ci xam-xam waaye wanewu ko ci Maodo rek déedéet ci xam-xam na maam Aliyun Gay waxoon maam Cheikh Alhaaji Malik suleymaanu amrin muusawiyun bi najdatin xaliliyu diinin déedéet bul ko wax sunniyun li muhammadi dafay kii moo tax duñ ko déedéet Moussa na mu meloon ca na ko yàlla jox nga xam ne lum wastanna lahu riha yajri bi amrihi ruha an haysu asaba moom mu moom moom say sayyidna Suleymaan Muusa nga xam ne yàlla muus kallama allahu Muusa taklima Ibrahim ca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama sallallahu alayhi wa sallam ci addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ana nabiyu la kazib ñu ni ko lu tax mu ne ana ibnu Abdul Muttalib man du ma wax la ca ginnaaw dëgg man rasulullah ñu ni ko lu tax mu ni Abdou Moutalib mooy sama maamam lu tax Abdou Moutalib di sa maam ba dootoo sañ a wax dëgg mooy dëgg la ko ganee àdduna Abdullahi la jur mu jur ko te moo taxawoon ca Kaaba ga Abraha ak dooleem ni ko yow ma lay mën a newal doole nga ma aaroo Kaaba gi ngay aar sa alal yow daal yaa bëgg àdduna mu ni ko man alal laa am de gis nga alal ku ci dee àjjana nga jëm moo tax yenn saa nga dégg ñu naan grève de la dafa xaram jàngaat leen téere yi mbokk yi dañuy jox xam nga Cheikh Ibrahim Aïdara mii du liggéeyloo Cheikh si ba weer wi dee ta fayu ko Cheikh si muñal ko deuxième mois fayu ko Cheikh muñalaat ko troisième mois xanaa Cheikh a ngi bëgg a dee xanaa Cheikh ngi bëgg a mu dem di ko fayu mu jaay ko doole jaay doole dee naa ba pare naa dem dee mooy grève de la faim alquran de laa yuhibbu llahu bi bissuui min alqawli illa man moo tax mbokk yi nañu bàyyi di bàyyi di gotti àqu nit ñi nañ leen bàyyi di gotti àqu nit ñi dangaa bëgg ku lay jàngal nga di ko fay yaa ko signé def ko defal la Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz daan def fay ñamu daan jàngal balaa weer a fay ñamu daan jàngal balaa weer a waaye lii lañuy laaj ak la ñuy laaj xoolal li ñuy laaj bu dee loolu la njàng mi laaj nga jox leen mbokk yi gis nga wallahi alazim du ñu mën a dem du ñu mën a dem du ñu mën a dem lu dul jikko yu tedd yii maam moo doon jibril dana ko jël cheikh alhaaji abdullah fexe ba jël cooy fukk yooye ngar ba taxaw tey ñépp di bëgg a mel ni moom ngir njureelu cheikh alhaaji malik mbokk yi loolu fokk ñu bàyyi ko xel laa yuhibbu bëggul allaha yàlla al al laa yuhibbu llahu ljahra laahu ljahra wax ju ñaaw wax ju ñaaw wax ju xumb wax ju métti grève de la bëgg ko ah attention illa man zulima ku ñu xañ ak xam moom yooxul ba ñëpp dégg la kon buñ ko toppee loolu rek dana baax fi may tëje dafa mel ni lu mu wax ni kon nag ma tëj ci benn xasida bu gàtt ci alxaaji abdul aziz da ah labbayka bu gàtt ndax dañ maa jox benn kii fay ni ma heure bi jaxe kon léegi noonu laa mën a waaw loolu lañ loolu la bayit bi ndeysaan bi ko daara ji xamee ba léegi fàttaliku ñu fu soxna ëmbee ca ñañu xam ëmb bayaan Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Chérif dina ci wax ci wilaaya moom martaba imaamu Chaaraani la solo Abdoul Wahab imaamu Chaaraani da daan dañ ko daan tégal tablo bi muy muy wax moo tax benn waaye mas na jóm ne àddina kan ci saxaaba yi mën na waaji ne ko diw mu ne ko ku la ko da foog ni xaw ma daf ko doon ormal pour bañ a tudd tur moo tax gàgganti mag ñi ci seen jotaay yi ñu koy moytu ñun xale yi nga xam ne dañ bëgg àdduna ñun àdduna rek ko ñu àdduna rek wóorul waaw wóorul waa ji dafa ñëw keroog ni ma asra bihillaahu déedéet isral manaami jëlun mu ni ma lu tax jëlin la war a man ko ah bu dee liñ jàng de moom warul nekk jëlin jëlun gi Mamoodo bind la war a nekk waaw Serigne Cheikh baal ma rek Pape Mansour Diaw dafa daan ma tànk bi